maanaam am na salle boo xam ne si salle bu mag la bu mën a recevoir ay clients am nañ tamit salle boo xam ne si salle bu mag la ngir def fa conférence fi leen nekk nii am nañ tamit ci kaw fu ñu wooyee terrasse kon ñetti bërëb yëpp ñoo fi nekk léegi képp koo xam ne si nag dégg nañ mu naan restaurant Eldassi yi dafa am ay hébergement wala ay logement ma ngay wax lu ko neex ndax de resto bi loolu ñetti bërëb yooyu rek ñoom ñoo fi nekk su ko defee ñoo ngi soñaat bu baax a baax mboolem ku dëkk Touba baa nga dëkk Mbacké baa nga dëkk Daaru Salaam maanaam ci misaal ngay bawal bawal ñu gën a sàmmonteeg li nga xamee ne moom la sëñ bi bëgg ci dëkk bi ndaxte saa su nekk dañuy gis ay nit yu jóge fu nekk ñëw solu lu la neex bëgg a dugg ci restaurant bi te loolu kenn ku nekk xam na ne am na kuréel goo xam ne si ñoom ñooy saytu wàllu woowu su ko defee képp koo xam ne si yaa ngi jóg ngir ñëw ci restaurant Eldas yi ñëw ngi lay ñaan te ba ngay sol wala boo ko yëre ba ngay sol na méngoog bëgg-bëggu ak charte yi nga xamee ne moom mooy dox ci réew mi wala boog moom mooy dox ci dëkk bi muy Touba Mbacké kon nag ñoo ngi ciy soññ ñëpp bu baax a baax ñëpp di ci góor góorlu comme ni nga xamee ne noonu la ko sëñ bi bëggee parce que tamit bëgguñu sunu client ñëw fii sol lu ko neex génn ñu arrêté ko wala book ñu indil ko ay problème yoo xam ne si mënoon naa ñàkk. comme que nag ñun ñëpp ñoo bokk dëkkandoo fii di Touba xam li nga xam ne moom la sëñ bi bëgg ci dëkk bi ñun ñëpp nañ fas yéene manko di doxal li nga xam ne moom la charte dëkk bi bëgg ñu koy doxal ñun ñëpp bu ko defee jàmm na ñooy waaye li ñu bëgg a leeral daal de plus mooy restaurant Eldas nekkul hébergement nekkul dancing nekkul foo xam ne si dañ fay dajale di foo ak caaxaan waaye bërëb boo xam ne si bërëbu lekkukaay képp la bërëb boo xam ne si tamit képp koo xam ne si am nga ndaje boo ñëwee dana la joxe euh, salle boo xam ne si mën naa def ba cent trente bërëb la tamit boo xam ne si lépp loo xam si waaye bëgg na ko ci lekk moo xam mu nekk lu sénégalaise moo xam lu nekk lu européenne restaurant Eldassi noppi na ngir defal ko bërëb la boo xam ne si tamit am na terrasse bu féex bu nekk ci kaw xëy na nag décoration ba rafet na lool ba nit ñi jàpp na plage la wala bokk leneen déedéet nit nag bala moo àdd ci lum ci ci lu mu gisul dafay ñëw ba gis ko ba pare loolu vérifier information ba pare xëy na ñu bari décoration bi ñu gis ci kaw mu rafet lool moom moo tax ñu jàpp ne yenn xeeti bërëb la te nekk ko booy dugg ci boutique kër xaadim bi da nga gis ci tableau bi ñu bind boutique kër xaadim au service de la vie sainte te boutique kër xaadim ak restaurant Eldas yi benn lan benn bërëb lan kon mënuñoo dox ci leneen lu dut au service de la ville sainte kon nag na ko ñëpp xamee noonu xam na restaurant Eldas yi li nga xam ne moom la sëñ bi bëgg ci dëkk bi rek lan ko fi defal ndax dafa bokk ci merveille yi nga xam ne sëñ bi ñaanoon na ko kon nag loolu lañ jëloon ngir bokkoo leeral mbokk yëpp ñu xam ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen jaajëfal ci tàmm gi nu tàmm restaurant Eldas yi jërë ngeen jëf Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer